fi ngoon dana ko dana ko jëmmal mooy mu jàpp bis élection yi am wala danga jàpp ne dafay ñëw ngir dalal askan bi wala waxtaan ak ñoom ci njëkk. non day ñëw dalal askan bi rek. Mhm. moo tax ma ne ñaan njëkk lay dalal bi mais Macky Sall yabul noonu mhm. nii deux semaines lu war a dugg ci koor gi ñoo ci koor gi. ñun dañoo war a dañoo leen respecté chrétien ak ñu a jël koor ñun ñëpp dañoo war a na gars yi respecté Sénégalais yi amul benn élection boo xam ne diggante bi Ousmane Sonko nag da doon ñaan ndimbal xam naa ne ko Macky Sall baal maa koy ñaan mu baal ko mais nag waxuñu waxuñu nu baal koy tooke euh, doon nañu def de parce am na dañ mhm. ak moom maa ngi ñaan. Mm-hmm. après Macky Sall mën na koo baal li ko doon xas loolu Macky Sall mën na koo baal à part mais am na xamul ko koo baal nañ ko wax te dee mi ngi mi ngi dégg parce que mi ngi dégg mi ngi dégg rajo bi bu koy baal na ko baal pour yar ko mu dem këram pour mu gis ay njaboot ay njabootam yooyu mais pas mu koy baal pour mu dem di bokk ci élection yi ah même Diomaye Faye moo tax ay élection yi wër tam il faut Macky Sall la bu dee mënut a continuer te article trente six mooy wan ni même élection boobu mu seeg le deux Macky Sall mooy continuer nekk président il faut Sénégal ñu jàngale lu xam loolu bari ñu bañ ñu dina Macky Sall après le deux avril dootu nekk président loolu xamuñu loi xamuñu dara mais Macky Sall même bu élection a amul article trente six may na ko mu continuer yor réew mi ba kenn muy forme élection yi jaar yoon mu teg ko ci yoon jox ko loxo yi set mais pas ay loxo yi jëmaay fa yi xam tey mënuñoo laajte français mënuñu dégg dara ñu jël loxo dëkk bi di ko dërëm xanaa yéen am doon si loolu yéen ah mais mais mais mais làkk français ak làkk olof wala làkk séeréer wala làkk beneen làkk loolu loolu amul loolu amul ca solo su fekkee ne sénégalais yi ngay waxal te sénégalais ñor ñor ndax jamono ji am na ñoo xamante itam ci euh, ci daara ji ñuy génne nekk nañ ay candidat kon kon ñooñu itam mérité ko joomaay ak keneen ak keneen mérité nga làkk français wala nga dégg làkk lii du daara bu dee loolu la kon ñëpp def ko daayira ñu def Sénégal réew mépp réew nekk réewum daayira lii réewum la foo xam ne dañoo bëgg ñuy liggéey Sénégal di indi projet yi di indi lépp di indi alal ji dugg affaire yi sax ñi xamuñu ko. Mhm. bu ñu toll fi yow tey gerte gi ak ñeem ñun ceeb bi ni bay dañoo dañoo mën a dundal ñeeb bi di ñor dañoo mën a dundal dañoo mën a dundal waaye ñoom kon ñoom nan lay jëlee dugub yoo xam te xamuñu amuñu xam amuñu dara pour dem bitim réew liggéeyi dara mais tey boo xoolee ñu bokk parce que amul kenn ku am xamal foofu liggéey Sénégal ay mer gàddu kese la. Mhm. maa ngi laaj sànq seulement muy monsieur le président Macky Sall Sénégal yi bari nu ngay ñaan dimbal. Mhm. ñi mel ni man mooy élection bu ko organisé gum heure bi toogal xaar ba eh, ba la dee jàll. mais nu àttewaat gaa yëpp mais mais Diallo loolu yoon wax loolu. mais Diallo. ah yoon wax ah. loolu président Macky Sall. bañ koy takkal caq ga ah. maanaam loolu nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy takkal sooy nekk président sooy waat. mais moom dafa waatoon ne. Hmm. dana dana samante woog sunu euh, sunu constitution te constitution bi dafa ne mandaam juróomi at la te mandaam yi mënu ko yokk mënu ko wàññi donc président warul mën a jéggi mandaam donc loolu itam su ko defee. est-ce que est-ce su su su fi toogee itam du dëppoog li nga xam ne moom la moom la constitution wax est-ce que itam moom def li constitution bi wax rek maanaam mandaam su jeexee mu organiser élection mu dem wala su ko neexee itam mu bàyyi président euh, assemblée ñëw toog organiser élection donc c'est ça est-ce que moom itam pour. waaw c'est mm-hmm. que article trente daa ñëw defar lu bari mm. dafa am ay problème am affaire bi c'est pas cause de Macky Sall affaire bi cause bi mooy waa PDS ñoo ko fendi ñu ni ñu ni seen leader bi dafa waroon jàll nangam deuxièmement ñu am benn waay bu am ñaari nationalité benn femme bu am deux nationalité mais kooku bokkutul waa déet waaye ñu ne dañoo ger waa dañoo ger waa conseil constitutionnel mais mais kooku bokkutul kooku bokkutul yooyu yëpp mënut a des réew mi Macky Sall na réorganiser élection pour Sénégal c'est pas normal te bu ko defee deful li ko war te bu ko defee tooñ na Sénégalais yi parce que Sénégal yëpp bu ko doon jox ko loxo yi set ñu xam ne démocratie réewum démocratie la am parce que réew mi jaay ay ay mer ngeem lan parce que boo gisee Ousmane Sonko lii waa ji wax moo la Ousmane Sonko yàgg naa ñaan ndimbal tey moom moo indi lépp te Ousmane Sonko li mu wax réeréewul bëggul jamaay fay dem Ousmane Sonko dafa bëgg a dem élection il faut ñu àttewaat ko buñ ko mënee baal ñu baal ko. mais nag dinañ woo Adji Sarr mu baal ko ak Mame Mbaye Niang pare Macky Sall mën na ko baal wàllam pour peuple sénégalais ñoo ngi wax di lancer appel encore ki nga xam mooy justice bi. Mhm. mooy femme bi xam duggante ni koy xas. démb mooy ministre de la justice moom la fàttali bi. Aïssata Tall Sall xaw ma. Aïssata Tall Sall waaw. léegi moom la jël waaw la jël ay matukaayam ma gis naa ay nit yoo xam ni dañ leen a baal nu bàyyi la nu génn nu koy xas. Mm-hmm. te réewum démocrate la nekk. Mm-hmm. kon assurance président Sall war naa jël ay moom war naa jël ay taxawaayam ñun baalu ñëpp mu jëm jëlaat dugalaat leen ci kaso bi xam ne loolu la méttoo parce que Sénégal dañ koo bàyyi loo xam ni ëllëg kii nekk président day am problème. Mm-hmm. ndax réew mu dul di réew mu réew day dem ba am réew mu réew mu reewante la lu neex waay wax lu neex waay def. kon loolu war nañ koo régler fii balaa élection yi ñëw ndax Sénégal dafa am ñoo xamuñu xamuñu démocratie yàqaa lañ xam. kon mhm. il faut ñu leen di duba di leen dellu bi. xam nga loolu rek maa ngi ñaan Macky Sall dix neuf heures la wax nga ko Sénégal yëpp déglu. te mhm. dégg ko xel Macky Sall xam ne élection yi pareegul pour pour organiser ko. mais mais mais mais mais mu ngi dégg sama carte bi parce xam naa mu ngi koy déglu. Mhm. wala koy dégg ñu ngi koy ñaan dimbal de tous les Sénégalais ñu koy ñaan dimbal ñu baax ñu bëgg Sénégal. mooy élection donc de suñ kenn du ko jox loolu sant kon loolu maa ngi koy yónnee Macky Sall ku ko mën a partager na ko partager pour Macky Sall dégg loolu. Mhm. ñun waa Sénégal dooleeguñ ci Macky Sall Macky doole oh, ñu Macky doole ñu Macky doole ñu Macky doole ñu ah waaye Macky doole ñu. d'accord merci Diallo waaye dimbali ñu Macky te yàlla tax Macky doole ñu ah waaye Macky doole ñu Macky doole ñu Macky doole ñu jërëjëf waay. merci merci Diallo merci. merci euh, di ko nuyu di ko jaajëfal moom loolu la daal di gis waaye comme ni ko Ibrahima Pleya bindee ci cat en direct bi rek euh, muy ñëw repousser que ay élections pour des prétextes quand même aussi euh, aussi fallacieuses prétextes aussi fallacieux aussi il faut il faut ñu ñu wax ko donc euh, euh, euh, ñu amal élection mooy li ñu ci constitution président bu nekk suñ la tabbee ba noppi ba sa mandat di waa di waaj a jeex moom 2019 ba muy ba mandaam di jeex donc dafa jàpp date organiser ay élection mu bokk ca gañe ko donc biir yoon itam moom nee na du bokk xamante ne moom la ko yoon sant mu def ko su ko su ko su paree itam su paree mu def passation de service ak ki nga xamante moom la askan wi tànn parce que askan wi moo tànnoon président Macky Sall su nekkee yoon dafa wax ne président Macky app wala askan wi joxoon jeex na mais da su nekkee bokkoo kañ joxeel euh, organiser rek euh, ñi war a bokk bokk ñi war a euh, ki war a gañe gañe parce que sénégalais ñooy tànn APR am na candidat leen ak ñeneen am nañ candidat ci ñoo ñi leen nag sénégalais ñooy xool ki leen gënal donc président lañ ko ñaan na jàpp bis ñun loolu rek lañ ko ñaan na jàpp bis élection yi am et puis on vote c'est c'est assez simple salaamaaleykum waaleykum salaam Oustaz na ngeen def allo salaamaaleykum hay allo mbaa oustaz dafa rëccam alo allo alo waaw. waaw na nga def naka journée bi. salaam ziar naa la naka yi tey. naka waa Mbour. waaye Mbour a ngi nii moom est-ce que ngoon di ngeen seetaan président suy wax. waaw man moom li may njëkk. boo ko hmm. njëkkee mhm. gis nga xaye de xaye de. weesuut juddu ci Sénégal. yaroo ci Sénégal. xamoo benn làkk bu dul làkk olof mhm. maa fi nekk olof di la wax olof <laughs> yow boo ne yow ku jiite réew mi warut a nekk warut a ku dégg France waroo jiite réew loolu saaga la loolu France bi ñu saaga Sénégal yi dañu <laughs> ñu à chaque fois ñun dañuy saaga te yóbbu ñu ne ñu ñuy saaga loolu rek lu ko gën a ñaaw lu mhm. ko gën a bon ci àdduna mu ñu ne maanaam réew mi ngi juddoo sa langue bi nga boo ko déggee amoo droit jiite réew mhm. ñun ban réew lañ nekk gis nga euh, damay profité corona bi. Mhm. gis nga jàngat lañ ci waroon def jàngal ne maanaam kenn ku réew pour mu dox sa bopp beneen réew. Mhm. corona bi yàlla da ko indi woon pour mu jàngalaale africain yi jàngale àdduna kenn ku ne boo bëggee def mhm. sa bopp ngay sukkandiku ko dem. benn réew du sukkandiku ci benn réew pour dem ñun nag ma du am lu ñëw. duñ ci am benn jàngat dañuy bàyyi rek mu seet. Mhm. gis nga lii dafa war a jeex Sénégal.